nga ne da ngaa xam kii foo xamee. Léna. foo xamee infidèle. ku la wax moom la. moom la du bokkoon bokkoon na tamit ci théâtre Ndeye Ndiaye. ba Ndeye kii mbetteel. talaay kon sa àdduna yëpp seetaan yow. man lépp lépp li nga def bëri de. ah. Léna ah. Léna moom dong laa bëgg infidèle nag. Léna nga bëggoon mi. ndeysaan te nag moom noonu la bëggee nag. Eh, eh, xam nga lu mu def dafa ñëw léegi nii faale wu leen. Eh, xam nga xamuma ko woon boobu. eh eh boobu si biir bi nga nekk